maa ngi koy dégg ci suba si mais xam nga jotuma dégg lépp seen waa Unacois seen yokk ak seen wàññi kooku xëy na ñoom seen wax la ñoom mais problème mu yokk ak wàññi man yaakaar naa ne warul mën a jóge ci ñoom parce que man mi yor sama gafaka dem ca marché ba dem jëndi xam la may jëndee man su ma ñëwee ma war a xam ne may jaay soit ma jëndee lu cher ma yokk wala ma jëndee lu yomb ma wàññil client yi mais pas man may yor sama njaay di basé wu ci ñële naan ñoom ñoo yor wàllu yokk wala ñoom ñoo yor wàllu wàññi. du ñu arrangé du arrangé jëndkat yi ndax dëkk bi metti na metti bi boo xam ne wàññi la gën a euh, séentu ko yokk yokk moom du solution. foog nañu ne bu fi Macky Sall ñëwee wàññi la ñuy def mais yokk dootu fi amati mais bu ñu bëggee yokk ñun lañu bëgg a sonal. sonal tamit ñuy njugg ndax ñun dèjà gisatuñu sax nit ndax bu fekkoon ñëpp dañoo dugg si biir nekk benn peut-être sax njaay mi bu ñu yokkee ñëpp mànkoo mu tane mais bu ñu yokkee fii ñi si biti ñoom ñoo ñuy gën a yombale toujours ñoom ñooy eh, def inventaire bi moo tax fi toll nii mu mel am yaakaar ne mu bàyyi woon ko nii mooy tane yokku bi waaw. xanaa metti si doomu aadama yi rek ndax damaa xam ni lu toll ni weeru koor bu ñu wàññiwul waruñoo yokk waaw dëgg yàlla loolu moom. bon duñu arrangé parce que même ñun ñii moom lu métti métti dañ koy jënd mais ñiy jëndaat di par détail si ñoom lay gën a métti xam nga li ma la wax waaw loolu. suñu borom day defal lépp bu baax waaye yëpp seen a nag ceeb bi ñu yokk moom ñun tiit na ñun njaboot yi ak diwlin bi surtout man mii sax aw ma tiital na ma de te man dina balaa may balaa may euh, dem marché naa jaay ba pare ñu soog a dem marché dégg nga bu ñu yokkee suukar yokk ceeb yokk diwlin xam nga koor gi na na miti te woor ba ngoon jot nga war a lekk yàpp lekk lu baax dégg nga soo amuloo ko dina nag nooy def boo déggoon nag rus ngaa xaaraani sa morom rus ngaa dem ci sa morom ne ko awma lii dégg nga boo déggoon am na bari ñoo xam mënuñoo yelwaan su sama saar yi waaye man na doyloon naa sëñ Fallou ñun lii ñuy jaay gisuñu ci suñu bopp ndax mbedd mi yëpp ay jën la mbedd mi yëpp ay lujum la te li ñuy jaay mënul jar gisuñu kenn kuñ jaay mbedd maa ngi fees del mënuñoo jaay dara ñun buñ ko dee yokk ci weeru koor bi di ñëw ñun waa marché Grand Yoff gëm nañ ni ñun di dinañ geraw ndax gisuñu benn nduggukat ci su biir marché bi ñun gisuñu ci benn nduggukat li ñuy jënd nii di ko jaay dañ koy jaay ñetti fan ñeenti fan mënul jeex mbedd mi yëpp ngi fees dell ak ay jën mbedd mi yëpp a ngi fees dell ak ay jaaykat te ñun jàppale wuñu ci dara amuñu canal bu ñu tuur ndox benn suñu canal yëpp a fees amuñu benn canal bu ñu tuur ndox. man li ma ko gisee moo du yoon du yoon lu ñu yokk bu ñu bàyyi ba mois bi jot ñu yokk marchandise bi en tant que julit ñu war a def lu baa bàyyi ba mois bu toll comme nii. ak ak ak weer koor bu toll comme weer koor bi ñu yokk marchandise bi loolu du yoon man pour man réew jurit warul demee nii quoi non dañuy sonal te dañuy sonal nit yi te sonal lu ñu nit yi sax parce que lu mu yokk lu mu seer seer yàlla dinañu may lu ñu koy jënde incha allah rabbi Bye.